jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax tey nag eh, ñoo ngi fii bii wasaare ci émission mag bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo su mu nee jàmmaarloo nag mbokk yi xel yi dem ci fan si waaye su mu nee jàmmaarloo xel yi dem ci ñi nga xamante ni ñooy sëgg ci digg géew bi di bëre tey ma dal fi ñaari xale yoo xamante ni naam bi ñu dugg see ci làmb yàggul waaye bëgg naa ñu ràññee leen bëgg naa ñu xàmmee leen ndax tey damaa dugg kolobaan jëli ki nga xamante ni mooy caatu kolobaan andi ko dugg bi passé jëli ki nga xamante ni mooy Ardo Junior andi ko bëgg waxtaan ak ñoom mbokk yi ci làmb bëgg waxtaan ak ñoom seen carrière waaye bëgg waxtaan ak ñoom ñaar ci seen combat ndax bu ñu xoolee kii nga xamante ni mooy caati kolobaan bëri na fekk ak ki nga xamante mooy mbay maintien ah moom mbay maintien am ci ndam ki nga xamante ni mooy Ardo Junior nag defe naa ne dugg na ci làmb mais amagul combat bëgg naa nag ah, gars yi seet si ko waxtaan ak moom ah dugg ko ci géew ay bi ndax digganteem ak caati euh, kolobaan làmb du ko daax ma bàyyi la ñu nuyoo ñu doog a wéyal wi caati kolobaan nuyu naa la waaw bisimilah bisimilah inna waa mi yàlla ginnaaw ba ñu sandee yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ñaari waajur di sant sama yaay di sant sama yaay di sant bu baax di ñaanal sama pap fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu nekkoon ak mboolem ñu fa tëdd di nuyu kilifa diine yëpp waaw di bàyyi di siyaar njabootu sëñ Afia bi di siyaar njabootu maam borom daaru bi yëpp waaw di si nuyu ñu fi nekk ñëpp nag. di ziar sama gaay àndal ñu waa Colobane bu baax waaw di leen jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ñëpp waaw ñu nuyu waaw xaw ma nu mu tuddati sax. Thiatou Thiatou ah, kii. sa waay bu baax. di jaajëfal bu ko jaar ci tur. non xaw ma woon hmm. bi. waaw Thiatou bi moom dafa yàgg moom depuis ba may bëre mbapat la ba tey. waaw caaru Colobane laa mos a tuddee sama bopp. kon bëri nga mbapat. waaw bëri naa ba taay ba sonn ba léegi sax damay bëri mbapat. mbapat lan nga ci am. am naa ci ay drapeau yu bari mu ngi sama kër. Hmm. drapeau yu bëri ay drapeau Paul Jackson yi yu bëri ay maire Gëddaal Fass Colobane yi yëpp bëri naa mais dama gis waa Colobane dañu laa gëm. sa diggante ak ñoom lan la. waaw man Colobane laa juddoo fa yoroo fa laa foo mu yóbbu bu may foofu moo xamul foofu damay ñibbi Colobane laa ñibbi. du ma xam ma fu dul Colobane te ñoom amuñu lu ñoom tamit ak waa Medina Karande en face Colobane bàyyi ma kenn ñëpp dañ may taxaw bu baax di ma jàppale surtout nag tout tànk yi nag. xale boo ci ndaw yi waaw. ok gis naa yow. dinaa dinaa gis. Ardo nuyu naa la. gannaaw bi ñu ngi lay fay. di la siyaar di la maagal. Hmm. di siyaar gars ma àndal bu baax bu baax. ñoo bàyyi seen lépp bàyyi seen nelaw xam nga. Hmm. mooy loolu di bëggee gaa yëpp billaahi su ma nee na muy lim rek damay juum di nga siyaar di siyaar baax bi mu àndal bu baax a baax mooy loolu. la ma war a tuur bi parce que ñu gis ne euh, ki nga tuddee sa bopp xale la ci làmb mën naa ne ñu ko xam bareegul la moo tax nga tuddee ko sa bopp. yee Ardo Junior bi loolu balaa ñoo dugg ci làmb la sax mooy loolu nekkee booy bu ndaw ba léegi xam nga Ardo bi ci lañ ko jëlee tuddee tuddee ko suñu bopp. mooy loolu. mu duggaguloo ci làmb yaa ngi bëre mbapat. yee ba léegi gaañ bu ma joxe avance mbapat léegi ma dem ak mu ñibbi. Hmm. mu ngi ne agent baa ngi ne moo looloo tax mu ñëw parce que Serigne Touba. mais euh, duggaguloo ci làmb nga fekk koo xamante ni daanaka dugg na ci làmb ba premier combat am coow lu topp ko nga bëgg a bëree ak moom lu waral loolu. non du bëgg a ak moom de. parce que Serigne Touba. mooy loolu champion la seeraan naa moom may may may Dieng champion la mais du bëgg a bëre ak moom. fii moom dañ ma ko proposé rek. dañ la ko proposé. képp dong kese. bi la ko proposé loo wax loo wax promoteur wala loo wax kilo woo. dama ko ne nice nice ay morom lañ te jàmbaar la. làmb game la business la. te ñun dañu. génn mais nag mais nag booy bi bandi la de booy bi bu ñëwee ci digg géew bi <laughs> ba abi sifle génn seen diggante ngeen war a jëflante. bari ci sëriñ boo ko xamul dina di nga rëccu jël avance am. moo laajal mbay meññee. loolu tax ma jël ko. moo tax nga tax dañoo ngi nii bari ci sëriñ Touba nekk mu fi sax di tourner gauche ak droite. jàmbaar ma yaakaar ma yaakaar boo doo dugg si ci làmb. Euh, xamaguloo ba lutte lutte avec frappe ni mu mel da ngay xool lu xaw a nooy wala nga xool lu xaw a kii yooyu noonu nga mën cee suqaliku ko a dem. yee ci biir wax na wax naa la làmb game la te game business la te business pour nga am ci dara foo nga. ñëw micro bi mhm. foo nga ñëw risque. te moom xam naa ni ci champion la mooy loolu. am na ñu gën a oyof tool ñu gën a yomb. dama bëgg a commencé ci lu tar nga xam ne boobu mooy loolu. képp du leneen. Saar gis nga de nuyoom de lépp ci yow la dafa mel ni làmb moom gars yi man aw ma ku may. téye micro quoi. mais yow est war a bëre man. chaque dimanche su ma sañoon man chaque dimanche ma bëre su ma bëree dimanche bi dimanche bi si topp ma bëre man su ma sañoon chaque jour loolu laay def wóor na Serigne Touba. man mais moom woo nañ ko woo nañ ko. wax ko sa diggante yow ak moom. waaw man nag kenn woowagu ma kenn waxagu ma. non est-ce que sa manager woowuñ ko tey jottaliwuloo ko. xëy na moom nag moom ñoom da ngaa déglu man suñ ma nee woon suba kaay bëre ma ñëw bëre. mais bu la joxoon orange kii di nga ko jël. déggoo ma xanaa man amoo ku may bañ si làmb man làmb bañu ma tax. waaw defagoo fi dara de moom wax dëgg yàlla bañu ma kenn ku ñëw ma bëre yow. mais nag dama lay wax de champion yi laay bëreel ñoo xam ne dañ lañ waaw man la sama waa ji mooy loolu quoi yaa ma gën a xam. bu ko bëree naxa naxa yee. yenn yu non non man doxuma si yooyu rek man nekkuma si yooyu. les champion nga bëgg a bëre rek jël ko. mais daf mel da ngeen xaw a ruusante yéen ñaar. non man ruus non bàyyi ma koy jox taayoo rek. kepp yaa ma gën a xam dama man dama xam ne yow boo nekkee ci biir géew. bandi géew bi ngay nekk nga ñëw fii tey di sëgg ak di kii xam nga. yow ñi ngay yow ñi ngay àndal sax. ah boo amul ak boo leen gisee. dañ lay yokk jom mais boo ñëwee fii. waaw mais fii fii géew la non non non eh, fii. fii moom ku fi ñëw di sagal bu yeboo ma jaar ñu wàcc. waaw yow man damaa xam affaire yu man ma juddoo laa nekk si risque ba tey ni man ci risque rek laay dox. micro bi lu dul ci risque. man ci nii man dama xalaat. bu mu bàyyi risque moo tax ñu toll tournoi ñu di bëri fii kay. di bëggee gaynde si boppu Johnson bu baax a baax. di bëggee waa Toussou di bëggee waa Korso. di bëggee QLF bi ñëpp. nan tey bëggee baax baax. di siyaar tamit fa laa waroon commencé sax. Mm-hmm. di siyaar sama gars yi nekk. la moo tax nga fàtte non même pas barki Serigne Touba làmb la rek day jël dem ma jël dem barki sëriñ Touba di béyee sama gars yi nekk si jeel bi nag di leen béyee bu baax bu baax di leen ne xam sama xelañ si yéen bu baax a baax ñu ñëw ñu ci làmb pour xeex wala pour kii dañoo ñëw pour guerre. guerre guerre nag boo ko déggee pour am indépendance la barki Serigne Touba làmb soxla mu ci dërëm. lan mooy lan lan mooy indépendance bi. indépendance mooy maanaam moom sa bopp. te gars yi dañoo war a moom seen bopp loolu tax ma dugg ci laam du leneen. yan gars yi. nan tey barki Serigne Touba nan tey kase bu ñu amee indépendance tey tey tey suba suba ma teg sama ngeer. bàyyi dem xool leneen. billaay wallaay. laam dafa metti loolu nag nga ko mën a wane prouver ko pour gars mën mun koo xam. yeah nice. na combat ñëw rek. combat bu ñëwee lépp dina mat ci cadre ku tedd gi. bilaay. waa dama si profité waale si li mu wax sama mbokk yi nekk si jeel bi. Mm-hmm. waa sama mag yeeg sama yooyu noonu xam nga. leen ñaanal ñun ñëpp. waaw natt bu leen yàlla teg yàlla na ko yàlla teggil. waaw ay ay kon ay ceer xam nga. sama yi sama tuutànk yi xam nga booy ñu viré korok ay badu bopp xama booy ndaw yépp daal ay seex ji bi xam yaa am gën a xam ay faalu si booy yooyu yëpp xam samay tuut samay booy lañ quoi ñooy ceene xam yàlla def natt am si ñoom. waaw dama koy sante yàlla tamit di leen ko ñaan ñu sante ko yàlla xam ne li gën si ñoom la ko hmm. waaw di ñaan tamit ñu natt bi yem fi quoi mu tegeeku quoi ku si nekk dellu si seen activité waaw di loolu ñëpp foofu ñëpp ko ñaanal ñëpp surtout ak sama grand frère waaw bi mu bokkal ndeeg bay di ko ñaanal loolu mu jeex si moom waaw. mais nag mais nag yéen ay xale ngeen su ngeen bëggee combat yi di gaaw da ngeen bàyyi taamu bi. non man taamu ma de mooy li ma la man pour mbëri ndaw yëpp laa fi nekkal bàyyi mu benn mbër bu ndaw. Ousseyn barke Serigne Touba su ma amoon lu ma gënal. waaw promoteur day woote léegi ñoom booy yëpp ñu dajal leen daf ko tournoi barke sëriñ Touba man kese ma bëri ñoom ñëpp. bu ma soñoon bu koor gi jaalee loolu day am quoi ma abrégé leen xool ñeneen ñi barke Serigne Touba bu may ñëw pour man rëgg-rëgg nga fi teg. kii kii est-ce ko agressé. kan. non kii laa man bu ma kii laa wax kii. waaw kii. per ñun dañoo xës yi te kii curfoo la. àndaale ma sama téléphone. àndaale téléphone bat Serigne Touba sib na bu baax li ma lay wax. nante la champion la. sib na bu baax li ma koy wax. billaahi Fulaanew mooy. Euh, euh, Serigne Touba c'est-à-dire kon dama mel ni yow li ma lay wax ni man dama dégg moom. mu ma soñoon gars yi dañuy tajale teg leen benn ma jeexal boo duggee si kii boo duggee duggee si restaurant. Ah, nga commandé yaasa daa fekk mu nekk sa pala. waaw du fekk du dafa nekkul di ci ren yuñ sa togg yëpp baaxul. andi dinaa osé. yaa ngi comprendre. man kon sëñ bi man man booy. waaye bu si taxaw di expliquer di wax di expliquer dawul sama yaram bi dóor yaa ngi comprendre affaire bi si xotteeku xotteeku bi nii ñëpp génn ajoñ affaire bi affaire affaire game bi day dangay waaye game la rek parce que sëñ li nga war a war a na bés boo jëlee avance mu agressé la laa la wax li wax leer na de man nit du nit dox bopp mais nag sa sax amu fa dërëm day xaanju yaa ngi sit di bëgg waa Colobane bu ah. baax a baax. man su ma demee si mbéy di dem. Mhm. nit du ma xool ne ma sa yére bi dàq na suuf. ndax lan. waaw dama ko xam rek man amul fu may dox ñu naan ma c'est-à-dire ñu waroo fi jaar man fu ma jaar yoon la man fépp laa. fu ma jaar yoon la fépp laa dem. amul fenn sens interdit. voilà kon boo ma naan ay cest à yi booy bii nii lu muy wax man loolu dawul sama yaram bi sax barki Serigne Bamba. lan mooy man la suma yaay booy bi li muy wax man loolu daw sama yaram parce dama gis ñoo xamante ne dañ lay contacter bëgg sa combat. waaw n'est-ce waaw wala déet am na ñu lay woo bëgg sa combat. bu neex la diggante Colobane ak Parcelles. waaw damaa gis ne combat bu neex la maa bëgg bu la sa manager wooyee nee na ñoom la proposé na am na benn booy boo xamante ne pare na. Sorval. ba ma wooyee léegi pour booy bi ma jël ko. ak ku mu mënti doon perso xam na kuy arrangé bu baax a baax. man yooyu dawul sama yaram sax. xam na kuy arrangé bu baax a baax. maa ngi koy nuyuwaale ah, nii quoi. Ba ah, ak Père Bàcc ak si écurie yëpp Colobane. écurie Colobane su nekk ñëpp maa bëggee di leen xam nga mënoon naa nekk si écurie bi doon booy ñu naan booy bi nii la demee wala ñoom ñëpp dañ ma jàppee comme seen bopp ku si xew la da nga may woo sa téléphone kar eh ñëwal defal lii da nga say bopp. waaw kon man tamit su ma xewlee dama leen di woo ñu ñëw taxaw ma ñu bokk si waaw kon noonu la demee quoi affaire jàmbaar la rek waaw di nuyu nag waa équipe bi yëpp waaw di nuyu anti. te ne woote loolu kay. bu aafiya xam nga yaa si. andi përi tapet la. Serigne përi yaa ngi en anti na ñu jël damaa invité fii ñaari booy caatu Colobane ak Ardo Junior ñoom ñaar nag bëggante nañu trop xaw ma loo wax ci combat boobu waaw ñoom ñaa ngi fi kay ñoo ngi fi di fi toj caatu Colobane ak Ardo Junior. yow de sama xarit nga yow moom um, sama xarit nga yow tamit loo yow mel ni yaay petit production waaw. comme la waxoon yaay yow lépp loo xam ne gis nga ne combat la neex na rek. soo wax. caatu Colobane a ngi nii. yaa may dégg wol Sori Fall. xam naa Serigne Fall Serigne Fall xam Serigne boo amee looy yor dama ci Cheikh Diaw. dama ci Cheikh Diaw ak yéen rëbës nga raw kuy aaroo. loolu rek doy na lay woo mu ngi nii agent baa ngi nii toog boo contacté rek mooy loolu. baa ngi contacté as manager arro bu mag mooy loolu. waaw. mais li gën a gaaw loolu daal mooy Serou Fall bu ko neexee ah moom bu ñëw caaru caaru kolaan nga kolobaan bu ko ñëw daan ak Serou Fall ma jox ko avance ñoom kee bu ñëwee ma jox ko avance loolu problème bu ñu paree nii bu ñu ma joxoon avance ñoom ah, bu ñu paree kay ma yabal leen ñëw kon. xam nañ maintenant bu ñu ñëwee pour la avance bu ñu ñëwee jox leen avance loolu kay problème ah. ah kon jeex na dinaa la waat léegi bu ñu paree. ok Ousseyn. kon léegi mën nga bi taxaw na. ma la waxal nii xanaa nee la waaw na woo Sori Fall wax naa ko nee naa woo Sori Fall loolu du loolu de man damaa nekk si yoon. dama am ñoo xam ne. non non ginnaaw da ngay déglu de. waaw si écurie bi. si. Mm-hmm. waaw mais nee naa na avance bi dama koy jël man dawul sama yoon loolu laa la wax. na woo Sori Fall. kii parewul. boo parewul na ngay ànd ak agent. fii mu taxaw léegi. barki Serigne Touba. mais damaa may mbokk de. non da may mbokk da nga am ñëpp am mbokk. yow ay Colobane amoo amoo fa dërëm dëkk fa laa juddoo. kon man fu dul Colobane dërëm rek amoo fa dërëm. bii di expliqué boo lekkee avant bi nga xam eh, baax rek. gis ngeen mbokk yi nii lay demee ci jàmmaarloo woo ñaari mbéy waxtaan ñoom waxtaan ci seen carrière waxtaan fi nga xamante ni fa lañ bëgg a gis nga dugal nañ léegi petit petit nee na suñu bëggee bu buñ ñëwee buñ jugee fii léegi mën nañ fa jaar jël si avance bi mais caatu Colobane nag mu ngi commencé di ruux caatu Colobane ngi commencé di di di ay mbokk ay staff man nag yaakaar naa ni. non ñu ma gisee man lu ma la fenn loolu lañ ma sant nee nañ booy def dañ ci àndul doo dem mhm. du ma ñëw nag jël samay initiation bopp di dugg si lu ma xamul. yaa comprendre. Mhm. voilà mais su ma demee ñu ne ma jëloon li ma koy jël. déggoo la wax xanaa. waaw mais ñii ma yaakaar ñii ñooy staff bi. ñii samay mbokk lañ ñii samay deret lañ. ñii maam ñoom. bi guddeeg bëccëg suba ak ngoon. Mhm. yaa ngi comprendre. waaw mais Sourou Fall mooy sama ménageur man. mais man dama bëgg képp koo xam ne toog na fi boo fi jugee. même bu dul ki ma la booleel sax nga am combat. waaw bu da nga xaw a xof booy. parce que Seydou Ndiaye su ma ko tàppatee ma bàyyi man ma tekki sama bëre ma barki Seydina Muhammad su ma ko. waaw mbay mi njee xaw a gën a man kii dawul sama man. ni may kontaan sama sama église. barki su ma ko boo ñëwoon xamoo ma danga naan booy bi xanaa day xaru. te loolu may wax. yow boo ma xamul woon làmb gisoo ma si làmb boobu nga ñëw suñu écrit ko génnee fii xanaa day xaru. mais léegi dawul sama yaram bi ngay da ngaa neex rek. saa man ay man ba ma jëlee mbokk sa bopp combat naan ma ay mbokk maa la ëpp ayoo boo yoroo bërewul mbabat bërewoo arène bërewoo dara. koyam bi muy wax phase phase tournoi bi fa mu dee am bëre naa fa. voilà man xamee ma la wala. tournoi bi fa mu am bëre naa fa. voilà man xamee booy defal nànk. mënoon nga ma tëb foofu ba may bërëb ak eh, doo dërëm. Eh, eh, ak si Touba nga jaar si téléphone bi Colobane mu ñëw ba foofu doo way yow daaj ak yow bañ bi doo dërëm laa la wax. Colobane chaque jour fa laay dundee njurée boo bëggee laa wax na wax fu mu fekk Colobane ma fekk ci ko foofu ñu toog laa la waat doo dërëm feeru jàmbaar rek maa ngi eh, xaañu bi sa grand bi laaj ko baax kuy arroseur moom xam na baax sut na fu ma nekk bu baax a baax yow maa ngi wax laaj ko ñàkk kii boo bëleen waxul dégg ma xam ñàkk ñàkk ci sedd dee eh, ko jël laa la wax nga naan ma voilà ay bu ndaw laa juddoo guma sax damay nàmp moom ba ngay nàmp nii. ba léegi maa ngi nàmp mënu maa fer man damay xool pour fer ba léegi mënu maa fer xaw ma lu tax. Ouzin ki dafa ànd ak koo xam xam na bu baax a baax. bee. du ma nekk fii naan ko. xale la la la xamee naka la la xamee. laaj ko. non yooyu la la xamee sama suñu kër gu mag. Mm-hmm. boo taxawee foofu da ngay seen combat yam Ibamaar <laughs> moo tax ma ko doo dërëm. <laughs> kii du xaañ wës. ngay kii werante da nga yoo xam nga war a def ñu yëgal ñu ci kaw léegi nga géewal ñu fa wala ñu wàcc suuf sama takk sama bët mais ba pare ma daan ko waaw kii nii waaw yow saf na xorom de <laughs> baa yow Baye Fall nga am na yoo xam Baye Fall nga moom Baye Fall nga am xam Baye Fall ko di wax loo yow leer yow <laughs> danga ne xam na ma te man xam na. non non man su ma la xamee soo soo su su ma toj fenn dama lay xam. yow tojoo fenn. si wóoroo laam xaw ma la si wóoroo laam yéen xam lan. ñu seen la seen seen laam ah, xam fu mu yem. man dañuy génn dem bëri ah, ba foofu ñëw. sama ko Serigne Touba ñaari combat laa fa bëri. ma dafa business te kii moo ko tëgg. ñaari combat kii moo ko tëgg. li ci def si lu mu génn ci àll bu bëri ji ko ñun la ngay wax ni ñun tiituñu ko ragal ñu barki Serigne Touba sa biir koñ nga ñëw fa combat bi yàlla na taxaw. nekk bi dama sa kër. biir Colobane nee na la nga waxoo Colobane fan dëkk. dégg nga dégg ci Colobane bu ñëwee bu taxawee rompee bu baax feneen fu dul si alaya yu mu doon mu laajte yaa coono bu mu dëkk ñu ko nga bañ a wax tur bi. golo laa bëgg maa fe gaaw a teet. bambara original <laughs> bu dee dégg nga bambara ñu laax. déggu ma. itoo déggu ma xam nga loolu dina ko dërëm. maa toog di laaj. waaw man la nga dem laajte ji. maa toog di bu baax a mani. yaa ngi gaay. waa Medina Kura. di leen déggee bu baax a baax mais bamana bɛɛ fɔra fɛn fɛn ye ye. ne k'i foyi jamu ni tɔgɔ la. man sama papa yaay laa dégg sama yaay. mais xam nga làmb laay laa dégg pare mu ne. boo xam ne ñu koy làmb laay laa dégg. man du ma man du ma xam man dama nekk moom baax man du ma sànni boo xam ne xamu ko kenn. loo dégg. pare fuule laa la yow dégg déggul dërëm. laakal tuuri laakal boo soo. lu fa daal ma ngay xaar waaw waxal ma ko lu fa daal ma wàll bëri da ngay xaar. lu fa daal ma wàll loo bëgg ma wax la ko. commencé ti di ñax bàyyi sa caay bi. li nga dugal ci lii génnaaw la ci de. man nekk xale ne la ci état ndax booy. barki seen di ñàkk. bu nekkuma si état wala boo paree nga waroo consultation. barki allah man ba man dama pare. pare. waaw wuy ma. nan de dañoo investir di xaar nag. dama bëgg nga xam ko booy. du ma sama moytu ma ci Fuuta. mi wonaali gore jama. an a wona la laawalam. sa dari ko laawalam kala ko yidu da ko min wadma ɗum wallaay ngacce karabi ko ngacce sawi ko wallaay karabi wallahi billahi karabi ko ngacce sawi choni ibalo kite foye billahi wallahi taala Serigne Touba mu ngi dugal ci boppam boo xam atam ko <laughs> ma dawul wax nag nan tey xam naa leen ay jot ay wërëb di leen sant xam ay raan di leen ne li muy wax nii xam dañuy neexal nii rek jàpp leen si ngir yàlla xam xam Baye Fall foo nga gis xam ormal leen ko moo gën yéen di sant gars baax a baax. yow da nga a tëkku booy bi fi mu toll nii. non du wax ni dama lay ni man a. barki sëñ bi ñu moom. barki sëñ bi ñu ngi woon nii xam nga leen yow. Eh, man sama boobu laa xam max borom xam nga benn sens interdit. loolu laay dem. bàjjël loolu la moo ma réer si ma réer gaale laay nekk chaque jour. barki sëriñ Tuubaa ñaar séance entraînement ngay def. xam nga xaar ma sant ñooñu. non di nga sant bu ñuy ah. tàggatoo di nga sant. man ñaar séance entraînement man xale laa man fu ma sentir entraîneur mi jug entraînement barki sëriñ Tuubaa gars yi ñu bàyyi ma fenn mën naa tëdd nelaw léegi yow dem entraînement ñu tëddaat yeewaat dem tërëñ ay séance ay kaat ak noonu saa yu sentir suñu yaram mooy lore dañu tërëñ. à part làmb la ngay def. à part làmb ñun ay nante lañ xam nga maanaam boobu ba léegi nag maa ngi wax ay nante gars yi mën nañu ko jëlee nañu quoi. Hmm. maa ngi jox sama maam. Hmm. ay pour yu jugee Côte d'Ivoire ak Burkina xam nga nante bi sib na boo paree nga laaj sa père bee mu tegal lu bari bu la neexee mën la wax leneen la leneen loo xamul. ñaata seen ñaanal yàlla nag sama. ñun mbéy lañu tudd sant André baax a baax. chaque xam André dañuy tudd sant fan nga teg sa bët ci làmb. man fu Yékini teg tàngam bu ko raw fu mu ngi def lu raw loolu laa fi ñëw def bu neexee yàlla suñu borom. dama gis nit ñi dañuy jël ay Balla Gaye ñu jël ay Modou Lo ñu jël Eumeu Sène mais nga ci Yékini. ñu niveau bi kawe na def si làmb laa bëgg a def lu ko raw. lu ko raw laa la wax. yaa ngi comprendre. voilà ñun xale yu ndaw lañ dama ko ñu fenn. làmb rek am. ñun ñoo opté ñun ñoo bëgg a ñun ay mbër lañu bëgg a doon dañuy bëre xam nga kon ñun fu ñu woo si làmb rek war nañ ñëw wuy si yaa ngi comprendre ñun làmb rek a ñu ñor ñu bàyyi lépp bàyyi football yeeg ay yi yeneen ak yeneen nekk fi yow nga tax choisir na tax ngeen bu bëre moo la ñor yaa mm-hmm. kon da ngay bëre bëre rek boo tuddee mbër moom entraînement mooy sa sant ci na tàq amul leneen ah. boo kàddu yu mujj lan nga ñuy wax. nga waaw dinaa sant nag sama mbokk yi quoi. di sant Goudé Saloum di sant Aké Goudé di sant Ousmane Mara di maire sama yaay bu nekk jaamu gan Marème Sarr di sant waa Casamance di sant waa Fouta di sant euh, Ousmane bu baaxa baax di sant Alaaji Avion mhm. di sant Baara. di sant Baara euh, ñoom Badou ñoom. Amidou xam nga mafia bi daal mafia cor bi mafia afghan bi xam nga mafia xëti dóor bi yaa ma gën a xam waa zéro bari Serigne Bamba bàyyi ma kenn daal xam nga 41 face ba face dollar ma déggoo jàppoo boo yëpp bàyyi ma kenn su ma limee damay juum daal xam nga di sant Baye Fall yëpp yëpp yëpp moom bàyyi ma kenn Colobane moom ah bàyyi ma kenn surtout sama gaañ laaw jaa xam ay papilo booy tut booy tout tànk yëpp ay Cheikh Dio bàyyiwuma kenn daal di sandaat sama yaay di sandaat sama yaay di sandaat sama yaay bu baax a baax waaw ndax lu ma am ak lu ma mën di doon ma demee ba nii di ma xool sax di ma xàmmee lu ko wala moom la di ko sant bu baax a baax di ko ñaanal yàlla mu nekk fi ba si kanam ak kanam fekkee tu tànk yëpp waaw di sant ñëpp daal su ma limee rek damay juum waaw barke Serigne Bamba di nuyu gars fi nekk ñëpp waaw bëggee jàmbaar bi di ko wane ne dara dawul suñu yaram ñun ay xale la nga woo say mbokk mu woo kan nga wax suur faaw nga wax. baax na. soo bëggee balaa maa dem ma jox la numéro. déet man kay petit laay wax mu woo ko wala ma woo ma woo suur faaw léegi. palaasam lay toog. moom. suur faaw palaasu petit lay toog di waxtaan. kon est-ce ko mu dem ci petit petit jox avance bi. su may waaye loolu saful wax. barki Serigne Bamba Mbacke loolu saful wax. billaahi. man bëre rek moo ma ñor bu ma nee dimanche bi damay bëre damay bëre si. micro ma nee dimanche bi moo ma ñor amul leneen waaw di jaajëfal ñëpp nag bàyyi ma kenn comme ni ma ko waxee rek su ma lemee damay juum Colobane nuyu naa ñëpp cet ba cet barki Serigne Bamba mafia bi yëpp barki alxuraan képp kuy bëggee caaru Colobane caaru Colobane mu lay bëggee bu baax di bëggee yow mi ma fi woo xam nga neexoon doo fi woo. lu neexoon gis na mbëri yu bëri. yuy déclenché xam nga waaw nga bàyyi sa lépp ne ma booy kaay dama laa woo nga ñëw xam nga dama la siy jaajëfal di la delloowaat sa wàccuwaay bu baax. jàmm moo jiitu lépp. te nga booy bi nag bu jële avance bi mu waaj bu baax. déggul nee na moom chaque jour mu ngi waaj. tey moom yaa ngi waaj mais barki Serigne Bamba bu jëlee sama avance du nelaw soo amoon kàddu yu mujj lan nga ñuy ñu tàggatoo. <coughs> yee Ouzin avant tout di la siyaar di la màggal bu baax baax ndax li yombul bu la neexoon nga ne booy yu bëree ko fi du ma ko fi woo mais xam nga yow daal sib nga quoi duñ nekk fii sax di la kii dañ lay ñaanal rek télé bi xam nga mu dem ba gën a xam nga. ñëpp dégg ko fépp fépp fépp. billaahi ngeen gis suñu bopp baax baax. amiin di bëggee nag gaa yoo xam ne damay nekk ñoom chaque jour bokkuma ci kenn deret mais ñëpp ay frère lañ. Mm-hmm. barki te dañ ma ko won bu ma gëm ko gis ko dama ñëpp bàyyi ñoom bu ñu ma jàppee sëñ Fallou tiituñu loolu te bëggee nag sama booy ndey yu ne koñ bi waa favelas booyoo bay sëriñ Touba aw seen fay chaque jour chaque jour dañ nee ne mbër waa ñu ngi xaat boobu ba léegi bilaahi mhm. di leen ne xam nga mooy loolu quoi mu ngi ci yoon mu ngi ñëw. waxal booy bi nag mu a delloo. mu dégg. non kii jàppee rek bu ko delloo ma xam day tekki ngembam. kon baax na bëggee xam li bëggee yore. waaw yore bi dëgg sax kon booy yore. waaw ko nga woote woote waat. te kenn ñëw. di bëggee waa KLF. Mm-hmm. di bëggee waa Tusu. di bëggee waa Xorso. TFX xam nga. di bëggee nante yëpp. waa golf. di bëggee sama papa papa Cëg. di bëggee baax a baax. di bëggee sama yaay ak samay tante. xam suñu kër gu mag di leen bëggee ñëpp samay maam sama maam bi ma yar bi ma nekkal fii nag kooku dama koy ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla baax bu ci kanam ak kanam ak kanam. xam nga mhm. jàpp set def ko caat mooy loolu moo tax ma nekk arrosé caat maamu mooy loolu di bëggee gars ma àndal ñi kenn dee kéej gu ci dañoo bàyyi seen lépp taal seen. kuure xam taal seen kuure ñëw ànd ak man di bëggee meen max. Mhm. ñun gisuñu monsieur le maire gisuñu kenn gisuñu président moom lañ gis. suñu koñ mooy suñu meer mooy sunu lépp. Mm-hmm. barki sëriñ Touba soo demee léegi léegi suma ma demee gaalem nga may fekk fa defee lépp lépp. Mm-hmm. di bëggee ab sa ab sa da romb fa ndekkee. Mm-hmm. di ko bëggee bu baax a baax ak njabootam. di bëggee buri ngoom xam boroom ceebu géej yi. ki barki sëriñ Touba non kii ceebu géej la. <laughs> ceeb géej maa ngi jógee yoro bu bu dee sama ñaari grand nekk asalem faaf dañ dër di bëggee laay bu waxaan bu baax a baax baax su Omar Baye Fall kooku maa moom bapat ba léegi di ko bëggee di ko siyaar di bëggee képp koo xam da ngay ñaanal Ardo muy làmb di sans combat lépp di bëggee ñëpp. sama mbokk bool waaw man tamit Korobaa bool bool yi dañoo sonn si man de. man maa ngi bëggee sonal fu mu bëggee xam ne waa Rëbës Ba maa ngi bëggee dama leen sonal. xam nga boo ndawi Korobaa waa dal jàmm gi. sama gaay yi. soxla ñoo ma koy defaral. damay ñëw naaw seen kaw li laa soxla di bëggee gaay waa ñaay cokkeer. booy dama leen di bëggee xam nga ñoom ñooy signaler ñoom temps bi jeex na li ñuy wax rek. pour ñu lu mu am jël. di jégaluwaat bu fi déglu seen tur yëpp xam nga. temps yooyu ñu xooj tey ñaari xale yi laa fi daaloon Ardo Junior ak ki nga xamante ni mooy Caatu Kolobaan mbokk yi ñoom ñaar nag nekk na ñaari xale yoo xam ne soo déggee ni ñuy waxee wala ni ñuy xoolee gisoo Caatu Kolobaan sànq ba léegi moo ñàkk dafa mel ni dafa mujjee xiif sax booy bi maa ngi ba petit. mafia bu dëgër bi 9-2. 9-2 <laughs> fàtte mafia bu dëgër bi bébé Issa sama professeur. ñëpp hmm. maa ngi wax petit nag gannaaw nee nga booyoo bu ñu fi jógee nañ fa jaar jël si avance bi dinaa fa yebal ñoom ñaar ñëpp ñu ñëw bu ñu ñëwee nga jox leen avance ndax nekk na xale yoo xamante boo leen tëggee gis combat bu neex même bu du petit tamit beneen promoteur boo xam te gis nga sa bopp ci combat bi rek xale yaa ngi noonu disponible na ndax ku ci nekk kii am na benn combat kii ngi doo dugg ci làmb di leen jox dig daje jàmmaarloo ak yeneen mbër ci Wassare Làmb jaa ngeen jëf